asalaamaaleykum maa ngi nuy ku nekk sa tur ak sa sant man la seen xarit seen doom de tiida di kee baaji di Joola Modern comme nuñ ko dee defee rek tey moom da ngeen maa jégal si baat bi ndax démb dañ fanaan di sut ba bor set waaye yéen yéen a waral li yéen li ngeen bugga rek ñun loolu la ñuy def moo tax it tey tamit duñ def dara lu dul ñëwaat fii bégal leen waat waati ah, tey nag ñu ngi ñëw fii si hôtel bi Euh, movie premiere bi dafa nekkaloo xam ne ay Gambien sa ay ñoo si nekk euh, mu nekk loo xam ne ñëpp a ko doon xaar movie bi neex na euh, ñu si nekk ay célébrité lañ ñëpp leen xam mu nekk loo xam ne tey nag ñu ne nu métti métti métti métti ah foog ñu ñëw rek ñu ñamal leen ci moo waral teewaay bi tey toppaleen ma si biir ñu am ñu ñu laajte am ñu ñu waxtaanal. lutax luñ fi ñëw ut si tey si bés bii nii toppaleen ma ma waxaa gaay comme nu ma leen ko waxee rek amna na ma leen fi andil gis ngeen ki ñum jéké ñu laaj ko lu mu fi tay assalamu alaykum wa alaykum salam naka nga def. jaam ya, tour bi. Hadi la Hadi Saala. Hadi Saala Hadi loo ut si tey fii si bi. ah xanaa support Gambia rek. waaw naka nga gisee bés bi dugg nga tok nga affaire ci naka la nekk di démé ana torop neex na tamit. loo wara am pour wa gaay ñu nekk di def li ma congratulations di len wax ne jaajeuf you know um, li you know it's something new lo xamantene ñun ñëpp war nañ contane xam nga you know um, ma ngi kontan dal contane na torop di leen ñaan wa di len ñaanal tamit ñu gëna def yu gëna melni yu gëna yu gëna toj yi dal waaw. baxna dinañ am lolu sobe yalla dina am xadi jërëjëf de nga ak ah, kon ñun ñoo déggandoor hadi mu ne affaire ci neexna na léegi duñ def dara lu du seeti waati keneen ci bi toppaleen ma ñu seeti keneen. ok gars am ngeen kuñ fi am anzu mom mom fu naa dëkk bi ñëpp ko xam anzu nuyu nañ. ah ma ngeen di fay. anzu ñun dama nañ ne dañ demba sa dañ na doon wóor de kañ man mo demo dama amone liggey bari so amo time pour dem sen ci event bi but I had it was nice and you guys were there too lolu degala naga nga <laughs> wa lolu degala ñu ne ku ki nga nama mo la raw naga nga gisee bes bi tay ah bes bi tay dama contane bu baax parce que gambe ñun li leen soxla parce que dañ tollu ci ah ci jamono bu nga xamne ñun ñu dekay bari dañu raw ci lu bari bu ba lu yi di am but su demee ba gis ah, people like Lilian ak ñeneen ñeneen di invest seen xaalis di ko def si lii di pour bugg a industrie bi taxaw xam nga pour mu dénk nag pour jàppale talent si tamit gën a feeñal talent si lii yëpp ñu ko def te mën nañoo jël seen xaalis bi dem ko seen banque bi si travail di si def lu nekk waaye ñu ne déedéet xaaral ñu invest ko parce que lu si munti rek turi Gambie la ñoo la ñoo wax. waa dëgg parce gis nga ko movie bi nice na. production bi rafet na liggéey bi rafet na Pamataar ak kuréelam bi def na liggéey bu rafet Lilian tamit hmm. ah, character ci dey di play very well hmm. liggéey bi nice na trop and gis nga li yeb talent la yi nga xam ne mu si Gambia ah, yi nga xam ni gis suñ ko waye su ñoo def ni di investment ni yenen dikay yëpp am li Gambia rek mo do ñun rek ñun rek si dess bok na good ne hmm. ñu ngay try comme dañ ci ñene dañ dé baña invest because yi yombul dégg la moom xam nga mën mën ñu ragal a dugal xaalis ba pare affaire si du ñëw woo. waaw waaye déedéet lu nekk risque la. ragal a ñàkk day xañe wërsëg. dëkk yi yëpp noonu la gars yi def. li yëpp dañoo invest ñun nag dañu fi invest mi dañ si lay xaw a ragal. te nit ki moom looy ragal rek. xam nga mooy loolu. du dem da ngaa ñeme. parce que dëkk yeneen dëkk yi lu ñoo def ñu tam mun nañ ko. parce que nit yi fii am nañ ko tamit. waaye comme li ma ragal bi. lool lañ war a bàyyi dañu war ragal di ñëw di jàppale di invest. di dépense ah, li nga xamné ligue bu rafet bi nga xamné nit yang ko def di dugal sen loxo sponsor ci tam dañ bëgg di ñëw parce que we have lot of companies here but tay soko ko fi fee. they only few te li war wallahi walon na gëna opali hein ah. wow so why other why other than that kontaan naa trop parce que gis nga turnout bi nit yeb ñëw ne support li is really encouraging ci ah, industry bi ñi nga xamné ñi ngay def ak ñi nga xamné ñi ngay bëgg def li dafa tax ñi gëna am doole bi pour gëna mëna gëna ñëmé gën ko ñëmé because gis nañ ñoo xam ne start nañ ko fi ñu bàyyi ñu ragal ñu bàyyi mm-hmm. so maybe lii moo tax ñoom ñëpp mun nañ koo def loolu la parce que yéen itam ñeneen dañ dee def waaye duñ dee am support bi da ngaa ootee bu njëkk da nga laa ootee movie premiere ay you can count the audience but léegi mm-hmm. ah, jamono mu ngee dem bi nga xam ne léegi things a ngi change yaa ngi aware ñi nga ñëw di support bu baax a baax di si musique bi du film industry bi du sport bi gis nga stadium bi du si fashion bi du si fashion bi tamit ok am nañ fi ko xam ne moom suma boos la xaw ma suma yaay la xaw ma suma ban la ban laa siy wax mu nekk aadi nekk jigéen boo xam ne mun góor moom it mu ngi yëngu si lu bari moo nekk si e yooyu daraja bi fanaa ñun ñëpp xam nañ daraja daraja nekkut lu ees ak bokka si crew yi Fashion Weekend Gambia aadi nuyu nañ la thank you lan nga ut si tey fii nag si bés bi tey nag dama ñëw pour uh, seetaan movie We Can Have It All ñëw pour support uh, Lillian Azizi and the whole team ñëw pour support tamit uh, suñ Gambian film industry um, because ñun rek a mun a jàppalante pour get suñ industry in terms of fashion music now film ñun ñoo ñun ñoo ko mun a def where it needs so that's why I'm out here today. lan nga war a am pour wax ñoom Lilliane because xam nañ ne façon yi liggéey bii neexut am na ñoo xam ne commencé nañ ko ba si digga bi ñu bàyyi ñoom nag ñëw nañ tey ba yàlla def ñu egg si fii lan nga war a am pour wax gaay yi. Um, li wax gaay rek mooy I think in every si si si si business bu nekk daal lu ko tax muy dem kanam mooy persistence. Uh, Dangai persistent uh, Be my the first one and it's really good um, I was watching it inside and I was laughing. Like nako. Like on nako Like you know, so na na keep it up. Rek we continue the the the the the the deaf fasongi movie ni. Um, oh, na nyip din enjoy. Okay, this name kung fi amune mom. ñemeñut xaw ma caméra bi la ñemeñut xaw ma man la ñemeñut xaw ma ban la ci way nuyu na la. Ah, maa ngi la fay. naka nga tudda. Ah? man ma ngi tudda Mun Jolof ñu xamé ma ci Lamine Seka. Seka. Yeah, recently my artist bu njëkk represent Gambia international for painting and design in China. Wow, really? That's nice. way mënuma wax bu baax nak non mu ne moom mënut a baax waaye doo ñu baalal nga wax bu baax. waaye kontaan naa si li fi am trop for the first time tam ma gis lu mel ni Gambia digga digga lii mu ngi wone ne rek lu nekk mun na si kaw suñ dooleelante jàppalante te xelaat nit ki am rek nga am jom pour puus ko te xam ne dina dox affaire si moom du dee nekk rek neen xaar government mu puus ñu ñu ne neen mun na noo doxale Gambia youth si ñun ñoo moom. ñu jàppalante buggante xol yi nekk benn. dëkk bi xatul xol yee xat. ok gis ngeen ñuñ fi am ñi moom dañ rek le kal macha allah nu naa. fay na la naka nga tudd. Elsie. Elsie naka nga tudd. Marina. Mariane loolu euh, lañ gisee tey bis bi. Oh, neex na trop ti rafet na euh, kontaan nañ pour gis ay euh, jamono bi ni xale yi di mag di. gis luy xew si dëkk bi di ko ak di share their stories and create awareness so rafet na daal guddi bu rafet la daal. kontaan nga. bëgg naa si torop yëpp nga yëpp <laughs> ok ah, lan nga war a am pour wax gars yi ñoo xam ne ñu ngi def lii xam nga mënoon nañu toog bañ koo def waaye ñu ne déedéet ñoo bañ foog ñu def ko loo war a am pour wax gay naka lañ koo yokk may war rek ne gars yi yokk seen bu gars stop bu am fii nii lii just the beginning la te turnout bi was great ah, maa ngi wax tamit rek dafa def ñeneen ñoo xam ne day am talent ñeneen dina def gars tam ñu juk ñoom tam ñu doo def lu mel ñu doo di def li su yaa gis ne Gambian artistes yi ak Gambia right now ñu ngi full of talents bu baax si fashion bi si music bi si movie bi fu mu nekk ñun bàyyuñ dara so fu mu nekk nii ku nekk daal mu ngee jóg so lool moom Gambie moom fu mu nekk nii bravo kañ na mën a wax. ah ñun ñoo ko déggandoor waaye foog naa ne suñ gënaa jàppalante rek affaire si dina dem moo foog waa baax na kon nañ jàppalante comme ni ko gars yi waxee jërëjëf thank you so much waay. ok am nañ fi Malick Malick mu ne moom dina liggéey si télé waaye du feeñu si télé loolu bu fi am. Malick naka nga def nuyu nañ daga da nga njëkk a yóbbu suma fit tiira baaj yi da nga yóbbu suma fit dama la gis rek suma fit dem. lan moo tax sa fit war a dem te yow ngay liggéey si télé bi. non xam nga ku nekk si behind the cameras di bugg a feeñu si caméra yi. because caméra yi suñ la tiimee dafa di doy waat. xanaa lox gis nga ñu gis nga kon lu ñuy daj Malick naka nga gisee bes bi tey. waa bés bi neex na trop at least gars yi wane neen fi talent wane neen luñ mun movie um, industry bi di nga gis ne lii na ko yóbbu kanam te soo ko gisee I mean it's so Gambian. Halle nice name taar neen xam and people ñu leen support si like bëri na torop foog naa ne man foofu laay amal waaye uy ma Malick naka nga ah, bés bi gis nañ ne ñu bëri ñu ngi def li dem na bañ si digga bi mën ko def plan ngawar ang a New York waa Kayaar ñu yokk a puus ndax ñu start da nga war a make sure ne mu complete consistency dafa matter in all what you do in life because if you are consistent ken dula jël serious because so soo miinalee nit yi lu neex ba si kanam nga dogal leen lu neex loolu dafa. du dem no di dem di dem di dem comme yow lo nekk di won Gambia ni sa programme bu neex bi xam ya nga dafa wara ya fi toj bu nga wax ya fi toj. yaa fi toj. man duma wax ya fi toj rek holal xoolal caméra bi nga wax ya fi man duma wax ya fi toj rek de waaye tiida baaji yow ya toj Gambia. <laughs> ok Malik jeri koku may Malik. xanaa yeen Voice of Digital doo leen dee doylu si Barhama Barhama ngi romba re gars ma signal etida etida et tiida lan la <laughs> Barhama waay sant no. non non always ni la fa lay demee Mom mom mom moom san rek ah. non ta te dama ko oyofal tey sa numa ko bëggoon orang defee su ko waroon a nunu benen affaire lañ don wote waaw ah, oyofal bi baax na kon dee ko oyofal naka nga gisee bes bi wa it was beautiful as always understand nga because uh, dara gintane ay Gambian xewle nga gis ay Gambian face fa understand nga because everything lu ma it was something li nga it has blown the mind of many people and now it's time for us to support the movie industry to come ni ñu ko doon waxee si we we we can so it's all we need is like to bring in yi mom, affaire yëpp ngi dem façon baa dem dem movie bi tamit mu gën by the grace of God dafa gën a dem rek dara du dara du yomba. léegi looy wax ñoom Liliane ñu def li munoon ñoom amit wisdom xam nga métti ñun ñëpp xam nañ ne liggéey bi métti na waaye ñëw nañ ba fii munoon ñu toog ñu ne ñoom duñ defati waaye dem nañ ba def lii yàlla defal leen bés bi loo am pour wax xanaa di wax ne ñu gën a fas jom rek understand nga this is just the starting of everything comme gars yi ko waxee this is the first thing first movie bu gaay def with this uh, quality I believe that they can do more than this as time comme nu ma ko doon waxee rek nañ nañ nañ leen support because suñ leen joxee di courage di ñëw seen events yi ñu nit xam nga ñoom it dinañ gën a euh, gis more reasons of wanna do more and more and more foog naa loolu daal laay advice ku nekk but it was a great one it was a great great. enjoy nga ko. trop trop. waaw baax na ko mooy suñ barahama kon. because ñun moom du ñu doylu si barahama jërëjëf ñu seeti waati keneen. ok am nañ fi koo xam ne tamit mooy loolu moom it na fi. Ah, farsani nek kan nekk ndaw bo xamne mu ngi yengu si ah, modeling mu ngi def lenen tamit waye this year mo nekk face of ah, fashion weekend 2019 ñu la ci Sané momit lu mu fi ut farsani Fatou nuyu ne ya, ma len def ay lan ka nga gisee bes ah it was wonderful the movie was really nice exciting and everything was so wonderful and so pleased I'm so glad that I'm here lan nga wara am pour wax ñom leena ñu def li dekk bi yeb ñëw uy ci len um like uh, the dëkk bi war naa uyu si um, ñu improve si ñu nekkee ñuy support suñ fellow Gambians and fellow fellow um, Africans in anything we are doing so that we can have the way forward. loo ñu woo façon weekend luy xew si façon weekend yëngatu bi bëri na de. ah yëngatu bi kay bëri na. <laughs> Mashallah, 6 and 7 of December at Coral Beach Hotel maa expect ko képp ku fi rek expect na pour gis la on that very day because it's gonna be a very wonderful show. ah lolu bax na ñun ñoo ko déggandoor kooku mooy Fatou Sané face of ah, Fashion Weekend 2019 Mune affaire ci yëngatu bi dina neex kon ñen ñep traalen ngeen ñoo ñu seetaan ni bés boobu noonu. ah man tay dama gis ay sanse be waru. gis ngeen ki sanse bi Refer na car mashallah na nga nga. ma ngi fa na nga tudda Sophia Sophia Sophia love you. Um, I was in charge of makeup, say, movie. Bay. Really? Wow, that's nice. Um, I'm really proud of Africa's. Um, I was expecting the movie to be good, but I wasn't expecting it to be this good. I just want to say well done to to Africa's Miguel, to the crew, to the cast, everyone. I'm so proud. I don't even know what to say. And thank you guys for coming through. You guys have been here supporting from day zero, you know. Thank you. Thank you. Ah, gis ngeen kuñ fi amati man moom tey dama wër di loxate ay nit rek Fanta nekk koo xam ne mooy loolu dee ma dem nañ seeti programme am bi mu toj fa amul lu mu fa deful doom de loo gisee bés bi. Um, alhamdulilah kontaan trop si um, doomi Gambie yi xewle ñu ñëw di uh, contribute tamit suñu waala comme que ñun tamit démba dañ xewle woon nit ñi bàyyi seen nelaw ñëw toog seet. ñu ñëw seetaan leen ba suma baat bi dégg nga num dee démba la dee. <laughs> waaw di jaajëfal ñëpp ba pare ah, kontaan nañ si movie bi it's a nice nice movie ah, te di ñaan tamit na nekk loo xam ne luy continuer la ah, su boobaa ñun tamit ñu am loo xam ne dinañ ko set as exemple wool bi di ko mën a seetaan du ma wax Africa rek because feeling niya ka Gambia, di setan yeneen African movie si so why not our own um, the wax team bi yëpp ne bravo uh, suma sister the makeup artist si ah sa sister bi toj na toj na moom kenn du weedi wante uh, makeup am di wax gaa yëpp ne thank you so much it's a really really nice movie thank you yow tam suma xarit Ah, am nañ fi suma mag xam nga man dama bëri xaajaan suba dama leen di wane suma mag si la bokk suma mag si la bokka naka nga def. I am feeling amazing. coono soona bët yaa ngi përi bët yaa nga woo. xam naa waay. Hmm. dëkk bii ba ngeen waxantoo lii. ah yëngatu bi bëri woon na. tey ku ñëwut. Hmm. ah mboot ñoom mboote de. parce que dinañ ko si dégg waaye duñ gis. waaye am na temps pour gis nag. waaw ñëpp waaye dinañ gis. léegi ah, maa ngi laa laaj tey. lan nga war a am pour wax ndawi Gambia bi because xam nañ ne easy wut am na ñu ko fi commencé ñu bàyyi yéen ngeen ñëw rek bañ a bàyyi ba yàlla dogal tey ngeen am bés bii nii lan ngeen war a am pour wax ndawi Gambia yu nekk di seetaan bugg a def mel ni ngeen bugg a mel ni yow lan nga war a am pour wax ñëpp amee lu ma leen di wax rek mooy ne xam don't give up ñun ñëpp dañ am fu ñu fu commencé xam nga dafa ñëw ak idea bii ne dafa bëggoon a def am movie xam nga ñun ñëpp jàppale ko si because Rome was in the end te nekkul benn nit moo mën a def dara sometimes di nga am ñoo xam ne am neen idea wala mun nañoo binda wala mun nañoo produce waaye foog suñu jàppalantee si la ñoo mën dem kanam so noonu lañ def si si mbiri film bii nii so des ma olof bi I know I know <laughs> waaye loolu leen jàppalante daal si mbiri film bi and hanga like just pour ñu encourage tamit nit yi pour ñu gën ñoo sponsor gën ñoo sitaan film bi because da moo ñu sitaan film bi da moo ñu ngi sponsor pour beneen projet nga xam ne dinañ am moo nit yi ñoo ñëw liggéeyal ak incha allah man foog naa ne loolu dina am amul foog naa sax xam naa ne loolu dina am waaye tamit dinaa ñëw nga dimbale ma matériel gis nga taay suma biir bi nu mu te gis naa ma kat woo yooyu laa bëgg yu na yow mi kambali loolu laa bëgg waaw baax na no problème kon ñu seetuwaat yi keneen thank you so much You said you are again. Okay, how are you? Yeah, I'm fine. Uh, what you doing here tonight? Actually, I came here to support Lily. Yeah, I'm actually one of the cast too. So. Um, how is the movie? Do you enjoy it? Sure, sure. What do you have to say to me? Like, they have come so far to this day. What do you say to the people? What do you advise to Lily? Whether they're going to push her or they're going to um, actually, what I would say is, you know, Lily needs our support, okay, in the Gambia and the diaspora also. So I think every one of us should actually come out and support her. She's, she's doing a great job, a great job, like she was. She needs our support. And that's what I'm here so, yeah. Supporting you, you know. <laughs> okay, thank you so much. Welcome. Yeah. Maina. Medina. Medina. Medina naka nga def kii moo nekk fa naa Medina moom nekkut ku ees voice out digital nekkut ku ees si fans yi ñun ñëpp xam nañ ko Medina nekk koo xam ne moo nekkoon face of fashion weekend 2017 teddu moom moom soo waxee face moom loolu rek Medina lan nga fi ut si tey si bés bi. ah tiita tey bés bi ñëw ma rek pour support bés bi dama si booka parce que bokk naa si movie bi. waaw. xay man xaw ma woon loolu di. waaw léegi nag man koo xamal ak xamal ko ko ñu toog di seet <laughs> am nañ fi Ziza Ziza tamit nekk na koo xam ne nekkut ko ees si dëkk bi fa naa ñun ñëpp am nañ ko Ziza ñu ngi laa nuyu. maa ngi la wut si tey si bés bi. ah ñëw attend si uh, the movie premiere I uh, can't have it all uh, mm-hmm. ah, nga war a am pour wax gars yi acteurs ñëw nañ ba am yàlla def ñu am bés bi tey. ban advice nga leen mën a jox. waaw euh, lu may advice gars yi mooy ñu jàng man loolu laa dee advice always nañ dem jàngi soo bëggee def dara da ngaa dem jàng nga nekk a professionnel soo nekkee professionnel rek loo def rek dina ok waaw. Ah, loolu dégg ko Ziza lu wax noonu loolu dégg lan nga war a am pour yokkaat. waaw loolu rek la lu ma wax force bi rek moom laay wax laas loo war a def da nga si war a nekk professionnel soo nekkee professionnel. def rek dina neex nit ñi te dina ñor ñor. dama bëgg nga caméra bi nga ne fi toj. eh fi toj. <laughs> Well, I feel good because, um, uh, like what Oz told you, it's a good, it's a, is a fact because uh, some of us have been in the industry uh, close to 12 years now. Wow. We have been trying to convince the Gambian, we have been trying to break through. We have been trying to show Gambians that we have talent. But uh, slowly but surely, people or Gambians are beginning to realize our potentials, and we are thanking God that I mean the turnout was good, and we are optimistic that or we are hopeful that this will continue. Uh, I mean, uh, basically, on breath, uh, the movie can have it all. Is a movie uh, predominantly about four friends, uh, four women who share love hate relationships with their partners and um, but it um, boils down to not having it all in life, and thus being appreciative and taking care of what you have, being content with what you have. Some of the difficulties that we faced, obviously, is the normal things people face. You know, like every character having to master their particular character, their particular role, because it's like taking a different life and then portraying it on, on screen. ok mbokk yi maa ngi leen a man la waate seen xarit Tida DK Badji ah, lii leen leen fi amaloon Voice Out Digital One naa leen ne man yéen li ngeen bugga rek loolu lay def ah, député ma nag nelawuñ ñu ngi def lii yëpp pour yéen mama Africa Awa Jammeh si makeup bu nice bi tey moom mooma mama, mooma solal tey mooma makeup di jaajëfal suma kat moom tamit saa yu ma paree rek moom tamit pare na thank you so ba beneen yoon fii si Voice Out Digital